waaw asalaamaaleykum waa Ngumba ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar man la Ablaye Fall nekk coordonnateur coalition Yewwi Askan bi ñu bëggoon ñëw ak yéen ci benn déclaration bu ndaw rek gannaaw bi nga xamee ne élection euh, locale yi jàll na. élection locale yi nag nekk benn élection boo xam ni ñun coalition Yewwi Askan bi nga xam ni lu mat euh, ñeenti parti ñu ngi ci yi ci gën a fës nekk Pastef euh, président Ousmane Sonko taxaw Sénégal bu xalifa Sall. Euh, bés du ñàkk bu Serigne Mansour Sy Djamil ak PUR bu Serigne Moustapha Sy Al am na yeneen parti yoo xam ni ak yeneen compartiment yoo xam ni gis nañ seen bopp ci biir coalition bi ba tax ñëw nañ ànd ñu àndul ak ñun ci liggéey bi euh, depuis mois d' octobre ba léegi donc mois d' octobre boobu ci lañ créé woon comité électoral foofu la liggéey bi commencé woon bi comité électoral boobu jàllee ñëw nañ ci li nga xam ni moom mooy investiture yi mu nekkoon lu jafe trop mais coalition yi askan bi fexe nañ ba dans l' ensemble dans la majorité ñu choisir Magaye Gaye mu jité tête de liste majoritaire avec euh, l'accord de tout le monde ci beneen walu bi également ñu choisir Mansour Ndiaye mu nek tête de liste proportionnelle ci ñëpp and ci kon loolu mo nekkoon li nga xamni mom moy mooy euh, investiture bi manam suñu ñëwé ci walu pré campagne bi également ñu ñëw ci def ci lépp loo xam ne war nañ ko ci def ba campagne bi ubbi si au mois de janvier ñun coalition bi ñu ànd ceeg waa dëkk bi yépp pour ñoom également ñu dagan seen baat dem ci ñoom waxtaan ak ñoom ci ay meeting ci ay teede baa waaye itam ci ay porte porte kenn ku ci nekk mën naa ne wala bokk ñu ci bari ñëw nañ sa kër waxtaan ak yow ci li nga xam ni moom mooy projet euh, coalition bii di coalition Yewwi Askan bi mu nekkoon benn projet bu dëgër boo xam ni amee woon nañ ko pour géewul pour géewul jëm si kanam gannaaw ba ñu gisee ni ay sooxe sooxe yu bari ñëw na fii ci géewul te ñëpp remarqué ndoo ko lool comme waxta ci ci euh, campagne électorale bi du aajo loolu ñu ciy dellu siwaat waaye fi nga xam accentuer sama rek dañuy sant bu baax population massivement voté pour la coalition Yewwi Askan bi da parce que suñu jàppee ne 1029 personnes dem nañ sànnil seen quatre coalition yi askan bi loolu defe naa mérité na bu baax a baax ñu delloo leen jukkal bu baax a baax kon su ma déggee sama mbokk yëpp ne euh, défaite victorieuse la maanaam euh, défaite la boo xam ne dafa mel ne ndam ci suñu biir ñun loolu lañ ko jàppee kon dama leen di dëggal rek parce que li am c'est une défaite mais victorieuse parce qu'on s'est donné à fond joxe nañ lépp loo xam ne mën nañ ko mais aussi ñu defee ko ci dignité ànd ak ak détermination boo xam ñun ñëpp moo xam xale yi mag ñi jigéen ñu ñëpp ànd nañ ceeg noonu ba li nga xam ne moom mooy résultat bi ñu am ko kon defe naa loolu war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax bi ci des moom mooy coalition bi dafa nekk ci yoon élection locale jàll na mais dafa am yeneen élection yoo xam ne mu ngi jëm suñu kanam muy élection législative yi nga xam ne juróomi weer yu manqué moo ci des kon mu mel ne taxawaay bii ñu am war nañ koo gën a dëgëral ñu woote du réunion pour tàggatoo de élection yi jàll nañ tàggatoo déedéet dafa nekk réunion de remobilisation nañu gën a defaraat jàjj yi gën a mobiliser waat waaye itam ñu ànd ceeg prudence parce que gars yi toujours seen cheval de bataille mooy infiltration na leen fexe infiltrer ruuxu ci seen biir pour mën a jël suñu information waaye ñun comme li may faral di wax rek mooy ku nëbbatuwul doo ragal ku lay infiltrer ñun li ñuy def ñeme nañ ci. te abadan inshallah na ci taxaw parce que c'est tout simplement défendre la cause des Géoulois te lolu ci lañu nek te incha ci lañuy dess donc bi ci dess mom moy dama bëggone rek ñu féliciter bu baaxa baax ñi nga xam ñom ñoy suñu leader commencé ko ci te micro bi nek Cheikh Ahmed Tidiane Dia may ñaan ngeen tàcc ko bu baaxa baax parce que mom en tant que président commission finance dafa mujjoon ma naan ko yow yaay coordonnateur bi parce que commission bu gën stratégique ci groupe bi mom moko ko won don ko doxal doxal bu am solo dang koy sax yeureum mais finalement grâce à sa clairvoyance mais aussi à sa sérénité il a su gérer ça vraiment en toute diplomatie ba liggéey bi ñu ko amal na ci anam bu am am solo ki ci dess nak mom moy Elage Hadj Mansour Ndiaye xëy na na ko xeyna ba sama wax ci mom mën baña sori waye limay wax ne s'il y a quelqu'un bo xamni ne war nañ ko respecter trop s'il y a quelqu'un de xamné ne jeunes yi war nañ ko mëna jox euh, loxo ñu and ak mom ku diñ ku am fullaak fayda su yeboo ñu japp ki nga xamné mom moy Elage Mansour Ndiaye ah parce que ci élection locale yi du rek ci la ko mais avant élection locale mais nak dafa gëna a firndewu ci élection locale yi nga xamné ci lañu ñu parce que à lui tout seul à lui tout seul il a fait trembler toute une coalition ndax lan ndax grâce à son sa génie mais aussi perspicacité bi nga xamni amna ci mom machallah andu ci euh, tous les jeunes yi nga xamni moy ils sont là présents moy jeune coalition yi askan nga xamni tay ñom ñoo taxaw fep pour sécuriser le vote waaye également pour taxaw pour coalition yi askan bi nek fep euh, ci biir geewul ñom également je pense que mérité nañ ay applaudissements bu baax a baax ki nga xamee ci laa jéxalé moy suñu maire di monsieur Magaye Gaye ici présent té wax naa ko sànq ci suba wax naa ko fan yëpp sax laay wax la coalition bi nga xam ne ñoom ñoo gañee élection yi ci gañee boobu nga xam ne gagné bu ñàkk xorom la seen politique de campagne bi yëpp ñu ngi ko tegoon ci yàq der loolu duma tay di ko wax wax naa ko démb dama koy waxaat tey parce que politique dafa war a set politique dafa war a am li ñu naan au moins intégrité morale nit ki nga koy sàmm mais ñun à chaque fois suñu bëggee dégénérer moom Magaye Gaye moo ñuy tempéré moo ne su élection yi kenn ci yéen de la ñemee tapas comme ci élection la nekk bàyyi leen leen ñu wax mais ñoom toute leur communication qui ci une campagne électorale moi saga, ak xaste ñi nga xam ne ñoom ñoo mais également ñi ànd ak Magaye Gaye loolu est-ce que rafet non? loolu moo tax nag man Ablaye Fall en tant que coordinateur de la coalition je prends ma décision personnelle xaw ma ñi ànd ak man dinañ ci ànd wala mais man je ne féliciterai jamais la coalition Benno Bokk Yaakaar du ko

Euh, la, diabolisation de la personne de Magaye mais aussi ils ont tout fait pour décrédibiliser qui est le candidat alors que il dafa commencé mais nous également avons commencé beneen cheval boo cheval, c'est pour contrer cette politique là parce que qui ma gis Magaye Gaye ma gis également comme nous ma dit, il xam depuis 4 mois mais je pense que ànd continuer même après les élections Inch'Allah, il day continuer ak parce que qui aussi il parce que tout simplement man suis may su japp ni dama koy japp ci ngor ci fulla ak ci fayda mais toutes les qualités yi nga xamni amna ci leader il a ces qualités là su d'accordé dana la d'accord na su d'accordul mune d'accorduma ñu and wéñanté loxo ba kenn ku ci nek gis né sa morom moo wax deug ñu and ci lool lool moy démocratie té lool mo am ci li nga xamni mom moy sun coalition di coalition Yewwi Askan bi ma bëggoon lool également ñu bay ko xel bu baax bi démarrer campagne électorale bi ñu may ma rek yagatul bi commencé campagne électorale bi dañuy def ce qu'on appelle euh, une campagne de levée de fonds wax ne wa nga projet yeeyu askan bi ñew pour kenn ku ci nekk nga indi sa deureum ñu def ci mo na ne euh, euh, mais andu ngor kenn jour levée de fonds j'ai été vraiment impressionné par l'élan de solidarité de tous les membres de la coalition maire Khalei, xale ni ni ku ci nekk ñii indi Temir, ni di ñaar téeméer ñii ne m'a joxe cinquante ni ne million ba le monde est à la fin sous nos fonds de campagne bi nga xam permettre ñu dérouler toute la campagne électorale sans problème majeur foofu nous également dama fay diaré, remercier tous les militants qui sont au niveau de la diaspora mi nekkuñ géewul ñu ngi ci àll ba di liggéey maanaam ñi ngi bitim réew waaye jàppale nañ ñu ci suñu campagne jàppale boo xam ni defe naa dina jaaru trop suñu taxawee fii ñu sant leen bu baax gërëm leen ci loolu. fi may jeexalee moom mooy gërëm bu baax suñu ay représentant bureau mooy jeunes yi nga xam ne ñoo ngi teewaloon ci bureau yi commencement bi ba fin 7 heures du matin ba 20 heures ñi ngi ci bureau yi. te mënoon nañoo choisir benen camp bi dem ñu jox leen 15000 wala 20000 ñu def seen poste waaye ils ont choisi de défendre émission Yewwi Askan bi avec bénévolat ñaari dërëm amewuñ ko ci am na ñoo xam ne jugee nañ dëkk ba dëkk pour ñëw représenter la coalition te amuñ ci ñaar dërëm ñooñu également man mention spéciale laa leen di jox sans oublier également ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu ay mandataires ñi nga xam ne également def nañ liggéey bu Amam solo kon élection yaa ngi noonu xëy na mënoon cee wax lu gën loolu waaye liñ ci tënkee rek mooy population géwul rawatina xale yi génn nañ en mass dem voté ji la coalition Yewwi Askan bi te vote boobu ñun am na ci mille vingt neuf voix te boole loolu lépp am na ay achat de carte d'identité d'électeur yoo xam ne am na fii maanaam fekk nit ki nga jënd carte électeur am dix mille francs quinze mille francs xaw ma ñaata loolu muy lu ñu war a ñaawlu te loolu dafa biaisé les résultats mais également dafa biaisé le processus électoral du début jusqu'à fin bii des moom mooy rétention de carte électeur yi nga xam ne am na fi nit soo àndeek moom nga ne ko dañuy dem ñu retirer sa carte d'identité daaf mu génn ñetti fan wala ñeenti fan après su xasee ba carte d'identité génn ba nekk ci sa loxo amatoo droit di ko téye parce que droit am la nga jox ko carte d'identité bi te ñoom dañoo téye nga xam ne mooy carte électeur yooyu ñu leen comme yéen faru leen ak man dañuy téye seen carte loolu fan lañ ko teg te exemple boobu am na ci yeneen exemple exemple exemple te lu ñu war a ñaawlu mooy loolu moom moy waxna ko politique de diabolisation bi nga xamni ni nekkee nañ ko ak li nga xamni ni moy euh, transfert d'électeurs amoon na ci élection yi passé mais malheureusement biñu koy signaler fekk na il était trop tard manam dañuy jël ño ñoo xam ni juddoowuñu géewul màggeewuñ géewul yeewuñ fi xamuñu fu géewul féete ñu transfert leen ci fichier électoral bi sous jour élection jotee ñu japp leen ci ay cas ñu ñëw voter mais nak ils sont intelligents du leen yabandoo ci ay kaar bi yoon da ñëw indi par benn benn ñu dugg ñu dugg bureau géewul 3 bële ñoom ñoo ko feesal moo moo tax ngeen gis résultat yi mel na mel foofu. géewul 1 également ñu dajale li ñu am ci électorat yëpp qui sont favorables à eux ñu deg leen géewul 1 loolu mooy li biaisé processus électoral bi loolu mooy li biaisé résultat yi moo tax ma ne leen 1029 voix yi ngeen am jàppale na 2500 voix ngeen am te élection législative yi di ñëw dinañ ko findeel groupe bi encore fois. nañu gën a renforcer groupe bi élection yaa ngi ñëw ñun ñëpp nañ gën a taxaw gën a liggéey liggéey bi day doog a commencé le travail ne fait que commencer législative bi ngi ñëw présidentielle mi ngi ñëw en 2024 ñu ngi naan ñëpp parce que nag Macky Sall day daanu moom dina xam fan la jëm mais ñun na fekk ne ñun ñii kat euh, ngooy nañ ci yeewi askan bi comme ni Sénégal gi yëpp ngooyee ci yeewi askan bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci teewal bi